ci sunu bés bi entre Asel Group ak euh, Global Trading di rafetlu seen taxawaay comme ni ma leen ko waxoon sànq rek ñun suñu concept tey lëkkaloo Asel Group bu Turquie ak Global Trading bu Sénégal pour def import export la ñu Sénégalais yi doon demee fee di dem di uti ñu mën a jël société yooyu teg ko fii di liggéey ak opérateur économique sénégalais yi ba xam ni ñoom duñ mën a demati lu bari dem di jëli foofu seen koom-koom tey looloo tax sama partenaire bi euh, monsieur Younous Ete ñëw pour xool nan la ñuy accompagner opérateur économique yi ak homme d'affaires sénégalais yi pour ñu xool nan la leen di jàppale suñu deuxième point xool comme li ngeen di wax ci côté mbënn mi nit ñi def immigration di dem ci géej gi mun a créer emploi sénégal yi toog fii jeunes yi gis si seen bopp tey looloo tax a yëkkati global trading ma indi ñi ci tàng-tàng bi nga xam ne tey yi Sénégal problème boobu am nañ ko kenn nelawatut nit ñi ngi jaar ci ndox mi parce que liggéey amatul nous on veut créer l'emploi pour les jeunes pour le Sénégal émergent ci kaw loolu buñ ci jógee dina am loo xam dañ ko fësal bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga liggéey at Assel Group at Global Trading ñi ngi teg benn projet boo xam ne ànd ci at Fortiness Group boo xam ne sunu mag Abdoulaye Dia moo ko diriger pour ñëw soutenir sénégal yi. andi ci at suba teel agence te bu boobaa beneen concept la dinañ ci waxaat incha allahu rabbi maa ngi leen di jaajëfal. est-ce que espace moyen mhm. euh, est-ce que

loolu moo waral coopération turc Sénégal. ngay wax tamit ne nekkul ku ñëw rek ngeen liggéey moom il faut ngeen am ay këyit yu wane ne structure bi formel voilà nga am sa registre de commerce am sa ni ne am société boo xam ne bu taxaw la ñu mën la jàppale. léegi jeune bi amul loolu nag naka ngeen di defar. côté boobu tontu naa ci jeune yi amul loolu ñu suñu concept buñ commencé liggéey ba mu taxaw pour créer emploi boobu dañuy xool ñun li ñuy gagné dañ ciy def social social bi. mooy ma fexe indi tey at man sama partenaire bi ñiy indi loo xam ne dañ koy jëlee turc wala fii lañ koy defaree jeunes yi di ci xëy di ci dem di ci yëngatu mais pour l'instant du financement boo xam ne dañuy jël jox jeunes xaalis su ñu taxawalee li ñu war a taxawal ba pare entre ñaari dëkk yi liggéey bi tàmmale lépp luñ ci am ci bénéfice xaaj bi ci social la jëm macha allah à peu près mënuñu la wax tant que commencé guñ mais daal yëgal naa leen loo leen am loo leen indi. boo leen ko tegee incha allahu rabi dañ ci taxaw ci côté jàng ci côté électricité côté bâtiment côté éducation lépp ñun pare nañ ACEL group at global trading at Fortinet group jàppale opérateur sénégalais yi pour le Sénégal émergent vu le Covid tey loolu mooy sommet xalal expo sommet xalal expo bi dafa am expo at warlu xalal summit warlu xalal bi mooy dem nga defi B2B ñu am ay partenaires ren vi Covid bi novembre bii la waroon am le vingt cinq bii mais dañ ko pousse ba le vingt et un décembre mais n'empêche que sénégale yi nga xam ne opérateurs yi inscrits yi pour jënd seen paquet si pour dem incha allah warlu xalal simit bi dina am di vingt et décembre au vingt quatre décembre à Istanbul bépp opérateur ak homme d'affaires boo xam ne bëgg nga ñëw teew ci loolu nga approché ñu nga ñëw inscrire inscription yi mi ngi nekk en ligne ba léegi incha allah mais expo bi. buñ koy wax moy amul stand ren expo bi en ligne lañ nek parce que Covid bi moo tax mënuñu jël di jaxase nit ñi ñi nek di jaay mais en ligne lañ koy def mais warlu xalal simit dina am inshallah monsieur Sow pour terminer. Mm-hmm. am la plupart des jeunes yo xamante ci ñu ngi bëgg a dugg ci domaine entrepreneuriat. Mm-hmm. mais ni ñu lijjantee registre de commerce sax wala nii la xamuñu ko nañ leen def ak ñoom. motax may la on fait appel à tous les Sénégalais ku nga xam tay bëgg nga am registre de commerce ak nii boo ñëwee ñun dinañ téye sa loxo yóbbu la ba chambre de commerce chambre de commerce loolu la fi nekkee nga jël say kayit registre de commerce nii na kenn du ko defal kenn da ngay waaxu te foog naa jeune bu bëgg a liggéey même booy jaay gerte caaf war nga am registre commerce am nii na yaa am import export ci loolu boo ko tegee loolu lañ la war a mën a jàppale ci la ñuy mën a ràññee kan moo am société ak am ñun bu ñuy ñëw di liggéey chambre de commerce la ñuy woo ne ko ce que monsieur X xool registre de commerce bi est-ce que comme ça qu'on travaille ku indi registre de commerce ci NENEA bu ñu ko tàppee dañ xam ne ndax kii société bi ça existe y a l'adresse exacte ñu mën a jël